الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla ci xéewalam yi nga xam ne mu ne su ko takk suñ ko jéemoon a lim waaye bokk na ci xéewal yooyu rek mooy yàlla def ñu dégg-dégg ay doomu aadama waaye mu def ñu nekk ay jullit yoo xam ne ñu ngi jéem a taxaw def ay ndigalam ak i santaaneem ñu koy ñaan mu may ñu kàttan ak wér ñu sax ci loolu ba dee dikkal ñu di julli ci yonentaam muhammad sallallahu alayhi wa sallam di massaw jàpp coono rawatina Oustaz Saïd li ndax xam nañu yoon bi ni mu xatee ni mu naqare ak période yi nga xam ne ci la jógee muy jamonoy tabaski ñàkk jotam xataayam waaye loolu yëpp aussi suñ ko delluwaatee ci moom mooy kan rek dafa naa ne bàyyeekoo na gox yi gën a sori yi dem fa ngir liggéey lislaam donc lii dara la waaye du dara ndax jamono yi ñu toll tey képp koy waxal diine rek amatoo droit toog amatoo droit nelaw ndax yu bare bare bare yi nga xam ne tey song nu jullit ñi rawatina ndaw ñi yooyu ñu war leen ko leeral war a jaar seen diggante ak yooyu balaa ñu muy agsi ndax ndaw ñu ëllëg ñoo fas yéene yore diine ji te ñoom ñoo ko fas yéene yenu kon ku mel na moom suñu ko woowee ci suñu jàkk ji te du benn du ñaar ay yoon yu baree bare la dañuy sawar lool di ko woo parce que dañuy yëg waxtaanam effet ak jeexital bi muy def ci ndaw ñi alhamdulilah loolu dañ ko yëg te ñu ngi ci sant yàlla bu baax tey nag ñu amaloon waxtaan tey ci jàkk ji mu tombeek bis boo xam ne bis bu jar a màndargal la ci lislaam muy arafa wax naa ko sànq ne jul ci tey xàmmee nañu wala seen doom yi seen ndaw ñi xàmmee nañu 31 lool xàmmee nañu 24 trop ak feet yi nga xam ne du ay feetu jullit mais bis boo xam ne bisu jaamu yàlla muy bisu arafa du bis boo xam ne la mu màndargal ci diine kenn xamul nu nu mu toll ñu woor ko war a wane xéewulu bis boobu mbégte yi ci nekk ak màggaayam waaye daanaka tey Sénégal média yi doo dégg daanaka ñoom xëy na li ñuy màndargaal arafa sax xëy na ñenn ñi nga xam ne bàyyeekoo nañu fii ci ay journaliste dem fi ñu koy def en direct mais dëgg-dëgg soleil bis ba waroon nañ ko di mu fenk seen presse bi ñu revue de presse ko ba nit ñi xam ne tey bis la bu ñu war a woor mais aussi bis la boo xam ne ab jaamu yàlla bu rëy moo ci nekk waaye ginnaaw arafa li ñu tuddee tabaski war a taxaw muy sunna boo xam ne mu ngi bàyyee ko ci sunu baay ibrahima alayhi salaam bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ñu woon oustaz pour mu defal ñu waxtaan mooy ban taxawaay la ndaw ñi am ci tabaski ban jàngat lañ ci war a am bari na lool du ma ko jiitu ci temam mais defe naa ne ndaw ñi moom li ñu war a mën a jëriñoo ci tabaski li ñu ci war a mën a jàngee léppi lislaam jullit mën na ci jàngee léppi lislaam mais rawatina bis bi nga xam ne jàpp naa li tax ngeen jël thème bi am na lu leen motivé ba tax ngeen jël thème bi donc ñu ndaw ñi dañ koy déglu may ko nopp ñuy woo nag mboolem ñi nga xam ne ñu ngi dégg muy góor ak jigéen incha allah ñëw jege si mën a jëriñu ci waxtaan wi su ko defee incha allah dinañ ko may ba julli su moyen rek incha allah ñu jébbal ko micro bi kon ndaw ñi daal ak lan lañ mën a jëriñoo ci tabaski bi du ma jiitu oustaz si tamam dama koy bàyyi incha allah su paree bu amee luñ ci mën a yokk ñu yokk ndem dina ko jar kon ñu ngi koy wax ahlan wa sahlan wa marhaban te ñu déglu ko bàyyi xel portable yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi am mbégte daje ak yéen comme ni ko cheikh bi waxee léegi ci bis bu màgg bi di bisu arafat ci barab bu sell bu tedd bi muy néegu yàlla mu ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa taala ki sosoon béréb bi nekk sabab bi bàyyi ko fi lépp luñ fi def ci jaamu yàlla yal na ko yàlla def fi misaani xasanaatihi yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim ginnaaw loolu tomb bi mooy ndaw jullit bi lan lay jàngee ci tabaski balaa loolu ñu def benn muqaddima bu ndaw ci tabaski ak Sénégal moom feet nuñ ko gisee jàpp ne léegi jaamu yàlla yi ñu yàlla sant nun ñëpp dem nañ ba symbole la symbole xam ngeen symbole mooy tur bi rek moo fi nekk ak jëmm ji loolu gaa yi naan prise d'arme au lieu ñu def défilé ñu def prise d'arme gaa yi xam ne tey le 4 avril ñu egsi place de l'indépendance ñu tiire ñetti kënu président tafal ay quelques militaires ay grade nit ñi dem ñibbi loolu léegi lañ def jaamu yàlla yi symbole suba la tabaski am nga xar ngandum xar laa jënd ponkalu xar fay sàmba de moom rey mu dee reyul mu dee lay dee non bi mu ko dugalee ci koñ bi bu ñu xëyee concurrence le matin samp xar yi ci buntu kër yi ku nekk di xool suñu reyee julli jeex na amul lu ñuy jàngee ci jaamu yàlla yi jaamu yàlla yépp nag jël ko ba mu jeex tàkk amul lu ci sénégalais yi di jàng lu dul lekk lekk rek ngénte moo ñu gën a jege parce que bis bu nekk moo am sunu buntu kër yi sunu biir kër yi boobu moo gën a doy waar lu ñu ciy jële lekk takk lekk dëj boo ci gën a dangereux nga xam ne dañoo war a wa jellu ci yàlla lekk léegi sax dëj yi dañ leen di aj ñoo dëj bi nañ ko aj quoi ba gaa yi jekku mën a cotiser ndax ñu mën a lekk ba suur suñu jaamu yàlla yëpp léegi lekk la waaye tabaski ab jullit rawatina ndaw dina ci jàng ñett mbokk yi jullit rawatina ndaw dana jàng ci tabaski ñetti mbir bu ci njëkk benn jaam la benn jaam a ngi nii bu nangul boroomam ak benn xale bu nangul baayam ak benn jigéen bu nangul boroom këram tabaski jeex na li mooy sababu tabaski jaam bu nangul boroomam doom ju déggal baayam jigéen ju déggal jëkkëram jeex na ban jaam mooy jaam bi déggal boroomam ibrahim alayhi salaam yàlla ne ibrahim inna ibrahima kaana umma yàlla natt ibrahima testé ko tas testé ko benn waay dafa laaj mu ne uridu an arifa alxikma fi amri llahi taala li nabiyihi ibrahim alayhi salaam bi zabhi waladihi ismail benn xale bu góor moo ko bind benn cheikh mu ne ko man dama bëgg a xam dëgg-dëgg lan moo tax lan moo nekk lan moo laqatu lan mooy secret bi tax yàlla subhanahu wa taala daan ne ibrahima na rey doomam lan mooy secret bi aljawaab cheikh bi di ko tontu ne ko inna al ibtila bil mataaib fi haadihi al xayaat lawnun min alwaani tarbiya wa tahzib inna al ibtila nattu ci dund gi ngay dund nattu bàyyeekoo ci yàlla ñëw ci yow yow jaam bi dafa nekk benn forme benn melokaan bu lay defar ak bu lay yar yàlla dafa bëggoon defar Ibrahima yar ko ba digganteem ak yàlla kenn dootu fi jaar lenn dootu fi jaar du baay du ndey du jabar du doom du alal du bëgg-bëgg àdduna du lenn ndeke nattu la boo xam ne yàlla moo ko wàcce ci kaw Ibrahima pour tàggat ko pour defar ko pour yar ko moo tax sunu yaruwulee bu nu ay nattu dalul ba nu yaru ba nu defaru dunu mun a dem ci yàlla du hasard yàlla xëy rek daal ne inna Ibrahima kaana umma Ibrahima benn nation la ci xeet ci ngëm yàlla tabaraka wa taala ku toll ne Ibrahim yàlla takkal ko garaat boobu ne inna Ibrahima kaana umma du hasard kon mbokk yi ndeke nattu bi yàlla nattu Ibrahim mooy tarbiye ko yar ko ba Ibrahima xam ne am na boroomam mu bañ a jaawale boroom ak moroom mu bañ a jaawale yàlla ak yaali mu xam ne yàlla mooy yàlla moo tax bi mu xamee ne yàlla mooy yàlla bi ko yàlla ne reyal sa doom nu mu def daf ko tëral rendi ko daf ko tëral xam ne yàlla moo ko sant waaye wa tahzib ndeke tabaski dafa ñëw pour ñu laab ñu set suñu xol lépp génn ci ba mu des yàlla yawma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim lépp nga génn ci sa xol ba mu des yàlla looloo tax tabaski ñëw moo tax kii tabaski tabaskiwul ngir ut kuy mu ngande ay kuy démb laajte naa benn kuy waa ji ne ma sept cent cinquante mille astaghfirullah barki démb barki démb la ni góor waa ji kuy bi ñaata la mu ne ma sept cent cinquante mille un million laa yóbboon jënd naa ci quinze xar jox ko quinze personnes ñu tabaskee ko quinze personnes xoola kon ki am sept cent cinquante mille ñaata la mën a jox jullit ñi ñu tabaski au contraire mu ñëw di tiitaru sama xar bi un million cinq cent la koñ bi dong maa man dong maa ko fi tabaskee biñ ko yeewee fajar ci buntu kër yi gars yi xam nañ ne du ma seen moroom moo tax doo am yàlla nga am yàpp te yàlla waxoon na lan yanaal allaha luhumuha wala dimaauha walakin yanaaluhu taqwa minkum at taqwa mbooleem ibaada bu ñu yàlla sant taqwa boobu moo des moo tax ñu am ko moo tax ñu war ko am pour ñu am taqwa bi tabaski bi loolu la pour ñu am taqwa taqwa mooy ragal yàlla def lim la sant bàyyi lim la tere julli loolu lay jëriñ koor loolu lay jëriñ kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun attaqwa hajj aj bii ñu nekk nii tey nekk yow mu arafa lu muy jëriñ mooy taqwa fa tazawadu fa inna xayra zaadi at taqwa mbokk yi mbooleem jaamu yàlla bu ñu yàlla sant pour nan ko def liñ ci war a jële mooy taqwa ya ayuha nnas ibudu rabbakum allazi xalaqakum walladina min qablikum laallakum taquun alquran bi li tax yàlla wàcce ko pour am taqwa xuzu ma aataynaakum bi quwa wazkuru ma fihi laallakum ragal yàlla boobu ñëpp la ko yàlla sant xam nga tey toll nañ ci jamono am na nit ñoo xam ne boo leen ne ragalal yàlla rek gaa yi dóor la ba nga dee tey ku toogoon ci kanamu sëriñ bi sëriñ bi wax ba pare nga ne ay sëriñ ragalal yàlla gaa yi dañ lay saax saaxee wala nga dem ci kanamu président de la république nga ne ko président Macky Sall wax ba pare nga ne ko président ragalal yàlla nu la gaa yi def dañ lay duma dem nañ ci sunu jamono ba baat boobu am na nit ñoo xam ne kenn ñemewu leen ko wax pourtant wax nañ ko Seydina Muhammad yaa ayyuha nabi ittaqillah yonent bi dafa ragalul yàlla dama leen di laaj yonent bi dafa ragalul yàlla ñi dañoo mu xanaa ragal na koor gi lañ jàpp ah koor ah, dañoo xiif koor gi lañ jàpp yonent bi ragalul yàlla ah kay mooy duum ala taqwa sax ci ku toll na yonent ñu ne ko ragalal yàlla kon keneen yàlla wax ñu ko ñun ñun nit ñi yaa ayuha nnaas ittaqu rabbakum yàlla wax ñu ko ñun jullit ñi yaa ayuha alladina amanu ittaqullah yàlla mu ne ñu ñi ragal yàlla sax ñoom laay nangul ñi ragal yàlla ñoom laay nangul lu ñu def maa koy nangu innama yataqabbalu llah min almuttaqin yàlla ne ñi ragal yàlla ñooy samay xarit ñoom laa bëgg inna allaha yuhibbul muttaqin yàlla nee na ñi ragal yàlla problème bu ñu am man yàlla maay intervenir maay leen ci génne wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraj wa yarzuquhu ku ragal yàlla problème boo am yàlla intervenir ñi ragal yàlla yàlla da leen di baal seen bakkaar wa man yattaqi llaha yukaffir anhu sayyi'ati ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal aljanna ñi ragal yàlla ñoom la yàlla dencal ñoom la yàlla subhanahu wa taala dencal aljanna saari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha alsamawatu wal ard uiddat lilmuttaqin kon tabaski li tax yàlla sant ñu ko pour ñu am ragal yàlla léegi nag lu tax ñuy tabaski te ragaluñu yàlla lu tax ñuy tabaski ragaluñu yàlla kon defuñu ko nim nu ko sante mais Ibrahima mi nga xam ne yàlla da koo santoon mu def ko moom jëlee na ci ragal yàlla moo tax ñu ne tabaski jullit ndaw lu góor li jeune bi lim ci njëkk a jële mooy na yëg ne dafa am jaam bu nanguloon boromam muy Ibrahim Ibrahima yar na doomam ba doom ji toll ci ndaw yi di toll tey toll seen digg ndaw falamma balaga maahu saaya buy dem tool di ko yóbbaale buy xëy mu ànd ak moom su ko buggee yónni yónni ko lépp lu borom kër gi mënul su yónnee doom ji doom ji régler problème boobu foofu la Ismaïl tolloon Ibrahima benn bis génn na rek gis benn picc muy lekkal doom ji xam ngeen ni picc buy lekkal doom ji ci lan la koy lekkalee ci gémmiñam picc picc mu ndaw mi day ŋaan bu mag bi sex ko di yàbbi lekk bi ci biir gémmiñ gi ba picc mu ndaw mi suur Ibrahima bi mu gisee loolu yaramam daw xolam daan ne yar ci Ismaïl bëggam ci Ismaïl dem ba bëgg a occupé xol bi yàlla ne kii foog ma testé ko ndax man la bëgg wala doomam ji la bëgg yàlla bàyyi Ibrahima ba mu dellusiwaat dugg biir këram guddi jot mu tëdd di nelaw gént yonent yi dëgg la yonent yi lu ñu gént rek dëgg la amaa ñun nag amuñu fuñ ñu assuré ne dëgg la amul te li ci ëpp ci suñuy gént yenn saa yi ay jafe-jafe rek noonu la ak ay problème wala tiit wala lekk ba sa biir bi ne këcc nga tëdd di gént li ci ëpp amma ruyatul anbiya xaq gént yonent yi loolu moom dëgg la ibrahima bi mu gént mu ngi tëdd guddi na gént lan la gént yàlla mu ne ko na nga rey sa doom ji da nga ko rey bi mu yeewoo xam ne ne ruyatul anbiya xaq mu am jafe-jafe jafe-jafe mooy lan mooy benn doom la am am naa juróom ñett fukki at wala juróom ñeen fukki at sama doom sama soxna si benn doom bii la am te bi mu koy am moom tamit dafa màgget te doom ji léegi su ma xëyul sax ne ko xëyal mu xëy rek la lépp fi doom di neexee doom fi muy neexee mooy doom ji tukki ñëwaat ne la papa dañuy daaneel gàlle bi quoi gàlle bi la ñuy dóor ay mart boo ñu defal la ko R plus 4 nga dégg paa bi ne jaajëf waay allahu akbar mu ne père dama la yóbbu màkk quoi da ngay góo dama la yóbbu màkk nga góo quoi nga dégg paa bi ne est-ce que ay lii moo taxoon ma jur la ma doom ji ma doom ji paa fas bi ngay dawal laa bëgg nga droité ko quoi kii yaa laa lay indil quoi benn 4 4 allahu akbar gis paa bi commencé foofu la doom di neexee foofu la Ismaïl tolloon ci Ibrahim waaye xool li mu neex lépp yàlla dafa bëgg moom kenn yàlla bëggul bokk ak keneen yàlla dafa fiir ana aghna ashraka ani shirki man amila amalan ashraka ma'i ghayru ghayri taraktuhu wa shirkahu man yàlla damaa doylu du ma bokkaale ak kenn képp kuy def dara boole ci keneen ma bàyyi laa kooku waaw war a waa Sénégal bu ñu xamoon ne inna allaha ganiyun anil alamin du ñu wax ne li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk léeg-léeg nga dégg ko li fi nekk su ko yàlla xeebee ñàkk te ñu ndaw ñi duñ ko wax de ponkal yi ñoo koy wax kilifa yu mag yi ñooy wax loolu ponkal yi nekk nañ ci benn dëj léeg kilifa gaañu ñu dem suuli ko ñëwaat dëj bi xumu lool benn mbokk ne ma oustaz doo def bayaan nit ñi dellu siwaat ci yàlla ah ndax danañ déglu mu ne ma commencé el rek ñu commencé yàlla def ñëpp digg ñëpp toog ndax ki gaañu woon kilifa la te am na alal bëri woon ne nit ñëpp déglu ñu pare rek ndekk li ma doon wax ci biir mbooloo mi am na ñu mu neexul seen lañ set daal lañ yor li ma doon ñaw yëpp ñu commencé di ko teppi paa bi di ko teppi ba ci yàgg rek li ko yàlla di nattoo mu ne Sénégal gi li fi nekk bu ko yàlla xeebee ñàkk ma ne ko waxoo dëgg de inna allaha ganiyun anil alamin mu ne ma kilifaa ko wax ma ne ko kilifa gi dafa juum dëj bi histoire bi jóg waaw histoire bi jóg dëj bi yàqu waaw parce que kilifa ga daa juum yàlla doylu na yonent bi nee na waa asamaan yépp nit ñi toll ci malaayika te xam ngeen malaayika yi ñoo ëpp nit ñi yonent bi nee na asamaanu première bi mu ngi kiic kiic xam ngeen kiic kiic table bi tey ñun waa jàkk ji buñ ci yéegoon nu muy nag balaa muy damm day kiic kiic yi yonent bi neen asamaan bi mu ngi kiij kiij yi ndax ay malaaka yu bari di bëgg a daanu seen kaw am na benn néeg bu tudd baytul maamuur bis bu nekk soixante-dix mille malaaka dina fa dugg te malaaka yi suñ fa duggee duñ duggaat te bis bu nekk soixante-dix mille malaaka dugg fa kon nit ñi ak malaaka yi ko ëpp malaaka yi ñooñ jooyoon ne kon yonent bi nee na malaaka yooyu ak jinne yi bu ñu àndoon ak nit ñi ñoom ñëpp jub xocc mel ne Muhammad jub du yokk yàlla tarfatal ayn du ko yokk bu ñëpp kàccooroon baraw iblis du wàññi yàlla tarfatal ayn in ahsantum ahsantum li anfusikum su ngeen baaxalee seen bopp ngeen baaxalal baaxalu leen yàlla ku baaxal loolu tukulóor yi naan sa nokki longere a fawi e hoƴƴuduma tinata ko wuli kono a tinata ina safi so dibbe so tibbe danko ceeb bu tàng jër nga tibb ko nga teg ko ci sa doq li nga yëg mooy tàng na mais doo yëg ne saf na kañ nga yëg ne saf na boo ko defee ci sa gémmiñ waaye boo ko tegee ci doq li ba pare ngay commentaire ñu ne la ceeb bi ni mu demee ngay commentaire da ngay wax la neex rek waaye xam nga ne xamoo mbokk yi ibrahim alayhi salaam mu woo doom ji mu ne ko yaa bunayya inni ara fi lmanaami anni azbahuka fanzur maza tara doom xam nga ne benn baay nga ci sa benn doom nga ci sa baay benn doom nga ci sa ndey sa wéyjur doom déggal nga ma lool ndax toog naa ay at yàlla ak ma lay doog a may te bi nga juddoo it jaar nga fi nga war a jaar ibrahima faseloona faseloona ismaila jabar kon déggal na baayam moo la ñu ne tabaski bi ñett la jaam bu déggal boroomam doom ju déggal baayam soxna su déggal jëkkëram ibrahima faseloona wax na ismail soxna si nga am baaxul ismail fase ko te waxu ko ne soxna si moo baaxul dafa ko ne sa buntu kër gi fi nga ko defa fi nga ko def nii fi nga ko jubal baaxul de sa buntu kër gi fi nga ko samp boobu du jubluwaay bi mu ne soxna si fase naa la parce que mooy soxna si baaxul kon doom ji déggal na baay ji moo tax bi mu ko nee déggal nga ma lépp lu ma la mën a sant def nga ko waxuma sax sama côté walla sa wàllu boroom waxuma sa yaay lu tax ngeen yëg ne doom ji déggal na yaayam keroog ba Ibrahima jógee masjidul aqsa Palestine yenu haajara indi ko ba ci masjidul haram diggante safa ak marwa diggante ñaari montagne ak maqaama ibrahim ak kaaba gi montagne yu réy la woon mu daal di ko fay wàcc mu ne rabbi inni askantu min zurriyati bi waadin gayra zi zarin inda baytika almuharram dafa mel dañ ko laaj lu limaasa mu ne rabbana li yuqimu salaa yàlla man day rawale naa sama njaboot jóge naa ci ville bi romb montagne yi ma ñëw ba ci xur wi fi waadin xur woo xam ne kenn du fa gis mbay màkk kenn du fa gis tool xayra zizar kenn du fa bay te nag li doy waar mooy mbay mi fu mu ñoree foofu ñoom ñoo njëkk a lekk balaa nit ñi lekk lépp lañ fay jaay tër bi daaw mu ngi ma fekk Arafat tër bi daaw lépp lan fay jaay amul lu dul jaay loo bëgg rek soo may gis am ngeen gerte caaf am na foofu gis nga am na fa de yenn saa nga gis ko ko nam di ko wër ah ndeysaan lu tax ma tudd ma tuddal leen loolu moo gën a tuuti mais am na fa ndax nit ñee ko fay yóbbu voilà mbokk yi Ibrahima woo doom ji bi mu bàyyee jabar ji foofu ak doom ji liir bu tooy xat mu jële ko fële indi ko fii wàcce jabar ji ne day yéeg fas bi di dellu jabar ji jàpp ci mbub mi ci ginnaaw bi mu daal di gees mu gis jabar ji jabar ji ne ko yow li ngay def nii ku la ko sant mu ne ko yàlla mu ne ko demal yàlla du nu seetaan kon gis nga jigéen jooju moo tax ma ne jigéen ju déggal jëkkëram doom ju déggal baayam waaye baay bu- bu xam boroomam ñoom ñett la yàlla feetal jox leen tabaski muy seen cadeau mu ne doom ji man de gis naa ne dama la war a rey rey ma la nag ngir sama bànneexi bakkan rey ma la ngir sama intérêt rey ma la ngir dama lay rey ngir yàlla sama boroom sa boroom sa boroom way jur bu jigéen yàlla moomu moo ma sant nan la rey su doon benn xale la tey bu ñu préparé wul bu amul imaan comme ñun sa papa ñëw ne la dama la war a rey da nga naan ko paa xaaral ma ñëw da ngay dem rek jël kuur yi rek ñëw taxaw ne père la wax léegi léegi ndeysaan waaye xale yee dañ leen a waajal nu rawuñoo xale tey yi xale yi dañ leen a waajal xale bi dañ ko préparé ba biñ ko ne yàlla nee na tegu ci baat biñ ko ne yàlla nee na moo tax nit war na préparé njabootam préparé sa soxna ba boo leen ne yàlla nee na dootoo am problème waaye boo bàyyee say doom rek ñuy ñu nekk ay simbkat wala ñu nekk ay mbër wala ñu nekk ay rappeur wala ñu nekk wala ñu nekk wala ñu nekk waaw bis ñëw nga yëbba ko yéene ko eh Mohamed di ko tuddee tuddee naa ko Mohamed nag nga ne ko eh Mohamed mu ne la xoolal père bu ma bu ma fëggati fajaran xam nga man damay guddee tëdd boo ma fëggatee gis nga waa bi naan ah voilà parce que préparé wuloo ko waaye am na foo doon jaar ak moom doo xaar di ko fëgg au contraire moo naan la papa salaatu nañ de ndeysaan amoon nañ benn mbokk ndeysaan yal na ko yàlla yërëm tudd Cheikh Diop bokkoon sous section bu laas golf mu génn àdduna indi ko ci ngoon gi tisbaar di ko préparé di ko yóbbu papa ji ne tey dong laa musaam lu ma métti bi ma nekkee sàppe premier nekkul sama gauche sama sama sama ndeyjoor dendu ma dendu ma ak moom tey dong laa musa tabax taxaw ci jàkke ji ma geestu gisuma Cheikh Diop sama wet tey loolu loolu jar na de am de am doom joo xam ne saa yoo geestu ci jàkke ji gis ko mu toog xam nga loolu ak contraire ak imam bi ñu doon wax ne am naa ñeent fukki doom kenn du ci ñëw jàkk kon bu leen fi indi seen doom ci jàkk ji hmm? am naa ñeent fukki doom kenn du ci ñëw jàkk kon yéen bu leen indi seeni doom ci jàkk ji indiwuma fi sama doom ngeen bëgg fi indi seen doom kenn doomam du fi jullee waaw loolu lañ doon wax de tuglóor tukulóor la kooku moom tukulóor yi dañoo def faux pas lay tukulóor la de wax dëgg yàlla neexul nag tey moom te ñoom waaw moom la de ay bal nañ leen waaw noonu la de nan la ko yàlla jëgal Ibrahim dafa préparé doomam ba mu ko nee inni ara fil manami anni asbahuka mu ne ko yaa abatif al ma tu'mar ay baay defal liñ la sant man leen rek mooy sama problème sa tajiduni insha allah gis nga min as-sabirin yaay rey neexul de rey rendi waaye man sama problème mooy dinga ma fekk insha allah bu neexee yàlla may ku muñ dafa déggal boromam loolu la yàlla doon xool ndax bi mu gisee picc mi di lekkal doom ji mu bëgg doom ji yàlla di xool ne moom la wala doom ji la waaye bi ko yàlla testé yàlla gis na ne inna ibrahim kaana umma fi tawhid wal iman Ibrahima donc nation la ci ngëm moo tax yàlla bi mu gis Ibrahima gisee Ibrahima def loolu mu ne wattaxaza allahu Ibrahima xalila yàlla nee na Ibrahima sama xarit la koo reyloo sa doom mu tëral ko di ko reen ah kooku yeba nga jàpp ko xarit waaye Ibrahima quitté na foofu waxtaan naag doom ji premier jour dama la war a rey doom ji nangu na léegi nag foog mu dem ci soxna si soxna su déggal jëkkëram waaye soxna su déggal boroomam ndax li tax ñu naan la bis bu nekk booy takk soxna fas far bi zaati diin du hasard jëlal borom diine ngay takk soxna ñu ne la utal borom diine ñun gars yi fii bu ñuy takk lu ñuy xool chef booy bi bu dóoree jiin bi non mais booy bee mën a paccal mais gis nga bët yi ñun loolu la ñuy takke moo tax ñu am problème iyaakum wa xadara u diman yonent bi nee na mooy tundiku leen gàncax bu sax ci sën gàncax bu sax ci sën xam ngeen gàncax ah xam ngeen gàncax mu sax ci sën sën mooy fan fu ñuy tuur mbalit bu fa dugub saxee nu muy mel bu fa naajo saxee nu muy mel day jóg ci kaw waaye doo ci am doom de doo ci lekk dara de su fëlëree rek jeex na noonu la jigéen ju rafet mel te amul diine jigéen ju rafet te amul diine noonu la mel moo tax yonent bi ne mooy tandiku leen jigéen bu rafet parce que daf lay indil problème rawatina nag mu rafet te amul diine mu gën a dangereux te ñun léegi rek loolu rek la te li garaaw mooy amul jigéen bu ñaaw jigéen bu ñaaw amul de jigéen bu fi gën a ñaaw bu ñu ko yóbboon léegi sang ko ba mu set dugal ko salon génne ko ñu ne la sawaay loo ci fay nga ne joxe naa million wala nga saa nga dégg kuréel dañuy jaay jàkka ji danaa jaay jàkka ji da ngaa jaay sa bopp nga bàyyi néegu yàlla bi yenn saa nga dégg ku ne jar naa toog ci signal de toogal jar ngaa toog ci fourneau de toogal terme yoo xamante ne dara du ci dëgg mais dañ koy naxe xale yu jigéen yi voilà problème ah waaye soxna Ibrahima moom melul noonu Ibrahima bi mu kitee dem ci jabar ji indi ko teg ko di wax ak moom xam nga jabar joo xam ne nangu naa dëkk ci xur woo xam ne amul ndox xur woo xam ne amul mbay amul lu ñuy lekk ndax Ibrahima bu muy jëlee Haajara ak Ismaïl di leen di indi masjidul haram ndax dafa indaale ay conteneeru lekk ndeysaan xam nga lu mu leen bàyyil benn mbuusu tàndarma ak benn mbuusu ndox la leen tegal waaye bi soxna si jàppee ci cari mbubb mi Ibrahima a ngi ci kaw fas bi soxna si siggi xool ko ci kaw mu siggi xool ko seen bët yi jàkkaarloo mu ne ko yow li ngay def nii ku la ko sant mu ne ko sama boroom mu ne ko demal sa boroom du nu seetaan 24 heures bi matul lu dul ndox mi am na ndox zam-zam soxna si am na ndox 24 heures bi dellu siwul soxna si am na ndox mu mu naan parce que boroomam parce que dafa déggal ci këram toogal fii tey kenn ci ñun fi mbokk yi boo takkoon jigéen am na ñoo xam ne dañuy takk fi jigéen bu ko yóbbu fii Fuuta rek mu bañ Fuuta am ñoo xam dañuy jële fi benn jigéen Dakar ne ko xam nga ngin ngi neew la ñuy dem mu ne la wala kaw la bu jege gii rek wala nga ni ko sebi xutaan mu ne la man Dakar man juddóowuma woon pour foofu léegi nag kooku nga bëgg koo jëlee ci étage dëkkaloo ko ci néegu ñax wala nga bëgg koo dëkkaloo ci sëngal wala nga bëgg koo wala nga bëgg koo ah fan lay mujj problème lay am kon mbokk jullit yi nañu yëg ne mbir yi du lu ndaw tabaski du lu ndaw yàlla daf ko joxe cadeau pour ñetti nit kilifa borom kër gu déggal boroomam soxna su déggal borom këram doom ju déggal baayam yàlla day ñii jaadu nañu defal leen feet ñett ñi jaadu nañu defal leen feet loolu mooy al iid mooy feet bi Ibrahima waxee loolu soxna si soxna si da ko ne waaw man lan laa ci ba nga may tàggu sa digganteeg sa boroom man lan laa ci mu ne ko waaye xale bi yaa ko jur te li ñu xam mooy wa amruhum shura baynahum gis nga jëkkër ak jabar bu ñu amee doom même bu ñu koy feral suñ koy feral yàlla lan la wax nun waxtaan waaye da ngay gis benn paa bu jóg rek eh demal ci oustaz Pape Gueye mu feral xale bi ana ma ndaw si moom yoonam nekk ci déedéet dañu war a waxtaan Ibrahima noonu la def dem waxtaan ak soxnaam soxnaam dégager responsabilité lépp ba mu jeex delloo ko ko kon mbir mi leer na delluwaat ci xale bi ne ko bis bu ma la war a rey nag mooy yow mu nahr ndeysaan mooy bésab tabaski laa la war a rey bésab tabaski mooy ci weeru aj su taxawee ba mu am fukki fan laa la war a rey Ibrahima bi mu paree xale bi ba xale bi nangu Iblis ñëw ci yaay xale bi ne ko yow jigéen ju màgget ju am ñaataat juróom-ñaar fukk ak nangam mu soo am doom ak mat ni mettee ak xale bi tey yow xam nga ne dootoo am doom benn la loolu gaa yi naan benn bàjjo kii boo xoolee ba sa ji- jëkkër ji nga xam ne léegi dafa commencé naax nekkatul amatul conscience bu tranquille kii boo xoolee ba mu rey xale bi yow fan nga jëm
gis ma wax loolu iblis moo ko wax loolu mu daal di jël ay xeer sànni iblis loolu ngeen di gis bu ñu demee màkk bu ñu jógee musdalifa forfa xeer yi dem mina dem jamra ya xeer yooyu lañ koy sànni ji ñetti place ngay sànni puus sànni puusaat sànni ñett yooyu yëpp dafa am lu muy symbole mooy ibrahima sànni na ismaïla sànni na soxna si sànni na ñoom ñëpp kan lañ doon sànni iblis mu ne sunu borom subhanahu wa taala nattu na defar ibrahim wallahu qad yubtali ibadahu almuminin بعرض لموافقة فيها متاعب سن بروم سبحانه وتعالى دو نات اي نيت رك pour caaxaan yàlla bu la bëggee da lay nat dañu ne élève bi ngay jàngal balaa nga koy jox diplôme foog nga defal ko test foog nga defal ko benn examen wala même boo demee ci benn société ñu lay jël liggéey liggéey bi mii na ko ko foog ñu defal la test defal la benn formation ba nga pare ñu tafal la benn diplôme pour wanne ne yow liggéey bi léegi mën nga ko yàlla dafa test Ibrahim yonent bi nee na inna allaha iza ahabba qawman ibtalaahum alif lam mim ahasiba annas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun yàlla bala mu ne bala mu ne ibrahima sama xarit la dafa am fu mu jaar ak ibrahim balaa yàlla ne wal- wattaxaza allahu ibrahima xalil balaa yàlla ne inna ibrahima kaana umma balaa ñu ne ibrahim yàlla daf ko daf ko nattu ibrahima réussir natt bi ibrahima ñëw ci doom ji ne ko bisu fukkeelu fan laa lay rey doom ji ne ko papa man waxoon naa ci wax jooju jeex na loolu waxoon naa ci ba pare man kay leen laa lay ñaan boo may rey bul ma rey ci sama kanamu yaay te boo may rey fexeel ba sama bët ak sa wët bu ñu jàkkaarloo te boo may rey paaka bi na ñaw ndax mu teel a dagg ma teel a dee ma teel a noppalu Ibrahima dem ci kër ga ndeysaan gàddu xale bi gàddu morso musóoru yaay ji di yéeg montagne yi màkka yi di wàcc di yéeg montagne yi di wàcc ba yegg fi ñu naan Muna wala Jamra ya mu daal di tëral xale bi ndeysaan tey bu doon kenn la ci sunu doom yi ñu ne nañ ko tëral pour rendi ko kuñ jëm bi mu jëlee paaka bi teg xale bi ne ko da nga may wëlbati rey ma ginnaaw ndax sunu bët yi bañ a jàkkaarloo rey ma ci ginnaaw fii ci doq mu daal di koy wëlbati sunu borom subhanahu wa taala moo nuy nettali xissa bi mu ne walamma aslama ñoom ñaar ba ñu nangoo Ibrahima nangu na ndogalu yàlla day rey doomam doom ji nangu na ne dañ ko war a rey waaye kii rey ak kii ñuy rey ci lan la ci lan la ci yàlla kii da koy rey ngir yàlla kii nangu ñu rey ko ngir yàlla kee nangu ñu rey doomam ngir yàlla yàlla nee na wa tallahu lil jabin mu daal di koy tëral ci jëbi bi mu génnee paaka bi yàlla nee na ma daal di koy woo allahu akbar wa naadaynaahu an ya ibrahim qad sadaqta ruya inna kazalika najzil aaya bu bara jara bàyyi xel a ngi noonu lu tax aaya bu jara bàyyi xel la yàlla nee na nii ma nattoo Ibrahima mu réussir ma fekk ci moom ngëm yàlla kese ma fekk ci moom ngëm gu ne keng ba ma fay ko tey jii lii di tudd tabaski ñépp di ko def àdduna bi yëpp est-ce que Ibrahima rek ci laa ko yemale ndax aaya bi loolu lay tekki ndax ci Ibrahima rek laa ko yemale yàlla nee na képp ku defar ci lu baax nii ma fayee Ibrahima suba ma fayee la noonu inna kazalika najzil muhsinin inna kadhalika najzi almuhsinin nii laay fayee ibrahim alayhi salaam ni ma ko fayee noonu laay fayee képp koo xam ne da ngaa def lu baax kon mbokk yi bunt bi tëjuwul albaabu maftuux bunt bi dafa ubbeeku mbir mi yàlla yemale ko ci ibrahim yàlla yemale ko ci xaajara yàlla yemale ko ci ismail yàlla daf ko ubbi rek képp ku def lu baax te ba nga koy def yàlla rek a tax yàlla nee na ni ma fay Ibrahima noonu laa lay fayee yàlla mu ne wa fadaynaahu bi zabhin azim jotoo naa ko gàtt gu mag bu rëy la yàlla wax gàtt googu borom xam-xam yi wax nañ ci wax yu bare bare bare bare mais li am li ci am importance mooy gàtt la yàlla indi ñu daal di koy remplacer Ismaïl mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala wax ci Qur'an ne ci suratul baqara wala nabluwannakum bi cheyin min alxawf waljuu wa naqsin min alamwal wal anfus walthamarat waaye wa basir sabirin ismaila waxoon na ismaila lan la waxoon bi ko papa ji ne inni arami fil inni ara fil manami anni asbahuka lan la waxoon sa tajiduni insha allah min asabirin baat baa nga noonu yàlla waxoon na wa bashiri sabirin yàlla ne dinaa leen natt ngeen tiit yenn saa yàlla day natt ay xeet ñu tiit comme Sénégal instant bi ñëpp a tiit fi mu nekk nii ñu am xar xar yi nekk seen biir kër te seen kër yi du ñu tëju ñu tiit nañu wala tiituñ ah am na ñoo xam ne sax kër yi dañuy tëju waaye dañoo tiit ñii génn di dem dañuy ragal guddee dañoo tiit parce que sécurité moo dul am al xawf yàlla ne dinaa leen nat wal ju ngeen xiif Sénégal dañoo xiif wala xiifuñ
li nga wax sànq rek xiif nañ dañoo xiif xam ngeen lu leen di wane ne dañoo xiif ay at yu passé tuuti am na yenn mag ñu nekk ci jàkka ji mën nañ maa seede kenn daawul jaay fonde kër goo duggoon fekk ñuy rey refondé la ilaha illallah da nga naan s ñi ñëw wala kaana mais li ñii léegi ñu dee damaa dem fekk fondé la ñuy reere te ña ñooy reere fondé Sénégal patron yi gars yi sax dañuy abonné maire fondé maire sama koppa ngi ni maa ngi dem te ñëw d'accord ngeen wala ma man dañoo xiif maire cere xar yi sax xam nañ ne dañoo xiif xar yi même takk yi dañuy xëccoo tàngal yeeg waaw takk yi da ngay gis jàkka yi ñuy xëccoo tàngalee biski mbokk yi loolu moo la wane ne dañoo xiif xar yi sax xam nañ ko carton carton lan lañ ci xamoon xale yi di ci yéeg ñu koy def oto di ko puusante léegi dañ koy jaay waaye moo ne xiif ataaya nga Sénégal ñuy jaay ataay loolu kenn waru ko fi woon xalaat mais léegi dañuy jaay kaas ataay fukki dërëm café Touba Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba bu dekki woon tey mu dégg dañuy jaay café bi ila ila wa kon danaan yowmal xiyaam jot na fekk dara warula ko loolu xiif wal juu wa naqsin min al amwal ak alal ju wa alal ju wàññeeku gis nga alal ju wàññeeku alal bi amatul njëriñ loo yor alal dix mille francs boo ko weccee ko tas na waaw ñi am kër xam nañ li may wax waxuma nag ñi amul kër ñi am kër xam nañ li may wax waaw fukki junni jëruñu leen dërëm da ngay gis tey ji sa tabaski bi pour mu sotti normal ah da ngay taqale rek da ngay taqale di taf taf parce que yoroo waaye wal anfus ak dee xoola dee gi ni mu bëree léegi nit ñi dañuy dee comme weñ instant bii ñu toll weñ moo ëpp assurance doomu aadama bakkan doomu aadama doomu aadama li muy dee par jour kenn xamul nu mu toll xoola massacré dañuy massacré ay nit ay centaine la ñuy rey par jour ñii di dee ci géej ñii di dee ci gi- jéeri ji léegi sax lan mooy ga- lan mooy mbetteel mooy nit dee nii rek di tëdd ci kaw lalam dee loolu mooy mbetteel chaque jour nga dégg ñi ni ñuy reye doomu aadama yi wa samaraat ak gàncax guy yàqu tool yuy yàqu mbay moo xam ne du baax dañuy mbay ba mbay mi jeex yàlla ñëw détruire ko ci armeem wa inna jundana lahumul ghalibun te wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa armée yàlla yàlla rek moo ko xam yooyu sax ci armée yàlla lañ bokk yooyu ngeen di gis nii ndax léeg-léeg nga bañ a julli gee yàlla envoyé la ponkali yoo ñu jàpp la di la saasaaxee dara laa nelaw wit nga génn pompe dugg ci sànq bi ñu dugg ngay pompe ñu yëkkati seen laaf ne la pompal ba sonn ñun mën a loon raf waaw wa maa yaalamu junuuda rabbika illa hu jàngeen xissatu namrud lan la ko yàlla boole la yoo yow boo ko ne ëf mu dee boo ko dóoree mu dee yàlla fekk buur boo xam ne dana maa yàlla yàlla ëfal koog yoo allahu akbar yoo la ko yàlla ëfal yoo yàlla indiwul ñay indiwul gaynde indiwul malaika yoo la ko yàlla booleel yàlla du sunu morom de waaye du yoowu kese kese kese kese yoo bu yàlla yónni ne ko demal def sa mission la dama nga liggéey mu ngoog yoo bi ñëw ne ci rax ci bopp bi noonu la génnee àdduna kon yàlla subhanahu wa taala armeem kenn xamul nu mu toll yàlla mooy natt waaye natt yi yëpp lu muy rëy rëy mu ne wa bassiri saabiriin bégalal ñi muñ mbokk yi mbokk yi soo nekkee ndaw war a am amu est-ce que dafa tekki ne da ngaa war a génne sa jaasi di agressé ñaata agresseur ñoo nekk ci Sénégal surtout période bi ñu toll seen zone bii nii jëm kaw ba géejawaay ba ba ba ci biir Sénégal yépp léegi doo xëy déglu rajo ba timis dégluwoo agression rey di rey ay nit nuñ ko teg ndax ñàkk est-ce que jàll na jël gaal Barça wala Barça est-ce que jar na ko dem di dee ci géej gi ñaata jeune Sénégal ñoo dee ci géej ñaata day ñoo nekk ay bër ñaata ñoo nekk góor jigéen ñaata ñoo nekk ay lu kenn xamul ndax lan alal ay na ay na sabru boobu Ibrahima Ismaayila waxoon sa tajidunu insha allah min asaabirin ana li yàlla waxoon ne wa bassiri saabirin bégalal ñi muñ mbokk jullit yi sunu borom subhanahu wa taala mu ne kullama kaana arrajulu aziman fi qawmihi kaana tabaatu aksar wa mutaabaatu ashad wa mataa'ibuhu ashad saa yoo xamante ne nit dafa jóg pour egg ci yàlla dafa jóg pour songu yàlla ci jaamu ko ci wéetal ko ci kennal ko ne yëg ne nag bàkk na njaag keroog la natt yu bëri nag ci yow suñ ko weddee nañ ko essayé rek damay ñaan ñi ci jàkka ji kenn ku nekk ci ñun na jóg rek ne damay dem ci yàlla bàyyil caaxaan yëpp jëmal ci yàlla bàyyil caaxaan yi nañ essayé nañu xëy rek ne dañuy bàyyi caaxaan weer rek weer nañu essayé weer ñun ñii ñëpp ñu ne dañuy dem ci yàlla weer woo xam ne lépp luy caaxaan waxuma la ñu fay dem waaye duñ ko xool ak sunu bët sunu tànk du fa tegu duñ ko dégg ak sunuy nopp léegi nga commencé am problème lu tax parce que iblis moo la dul bàyyi nga dem ci yàlla ñun ñëpp bëgg nañ dem ci yàlla ñun ñëpp amul kenn ku nekk ci ñun lu dul kontaan te yàlla moom nga bëgg waaye iblis moo la ci dul bàyyi keroog bi nga sooboo futteeku ne maa ngi dem ci yàlla iblis ñoo na taxaw ne la waaye saa yi foo jëm dane ko man dama bëgg a nekk sunnit dama bëgg a nekk mu waxit ku am tawxiid kuy dund sunna ku roy yonente bi mu ne la waa léegi sa jiin yi noo koy def sa pain wi noo koy def fekk am nga ci cinq pain nag ak ñaari tëmbal ak ñetti ramjeez mu ne waa lii noo koy def fii gis nga nga commencé naan wax nga dëgg de waaw mais garaawul eh garaawul quoi naa julli rek naa dem di julli rek garaawul gis nga doo dem allahu akbar nga jéngu ne ko yooyu dama koy sànni fële mu ne ah bon waaw waaw léegi nag d'accord naa da nga koy sànni mais nooy def ndey nag ak ayda nooy def f f noo koy def ah ñu naan wax nga dëgg de yow ngoon gu nekk da nga fa daan dem yaa ngi nii te boo demee di ngeen dem di ngeen dem député yi reer yi naan lu sedd toog tuuti fiixal xol yi léegi nooy def loolu waaw wala yenn saa yi nga envoyé ay message woote téléphone léegi nooy def loolu waaw nga naan waaw waaw mais garaawul ah naa julli rek waaye garaawul egg gu ma foofu oustaz fasaale ma yóbbaale leen ma dégg ngeen wala gars yi di wax ñu ngi nii toog ñaata nit ñoo la jox oustaz fas mbaa yaa ngi ñuy fasaale fasaale loolu mooy lan ka jaamu yàlla comme nit ñi nga naan fasaale ma loolu moo tax gars yi ut ay sëriñ pour nekk ci seen caaxaan làqatu ci ginnaaw sëriñ yi pour sëriñ yi yóbbu leen aljanna loolu la loolu kese moo tax gars yi ut ay sëriñ amul leneen billahi wallahi wa taala sénégalais yi la ngaamuñu ci ginnaaw sëriñ yi loolu def caaxaan bañ a bàyyi li ñu nekk di fo ba dee gëm ne sëriñ bi dina ñëw yóbbu la aljanna mbokk yi suñu jàngoon tuuti rek wala ñu ubbeeku tuuti wala ñuy xalaat rek danañ xam ne sëriñ yi mënuñu dara yowmal qiyaamati su fekkee yonent bi moo mënul dara yowmal qiyaama Ibrahima mii ñuy wax ni tey tabax tax tey nga xam ne moo tax tabaski am mënul dara yowmal qiyaama Muusa mënu fa dara Nuux sayxul mursaliin mënu fa dara Isa mënu fa dara Masiix Musa kalaam kalimullah ñi ñëpp mënuñ fa dara yow nga ne benn waay bu dëkk Sénégal mun na ci dara te ñee di ay yonent bokk ci martaba yu rëy yi nañ leen njëkke ci Adama mooy bàyyi mbindee fi ana ñaari doomam yooyu doon xeex kenn ki rey kenn ki ñoom luñ tudd ñaar ñooñu Qaabil ak Haabil kan moo reyoon keneen ki dégguma dégguma ngeen qaabil moo rey haabil Qaabil moo rey Haabil ana ki reye mi ngi àjjana wala mi ngi safara mi ngi safara lu tax bàyyam Adama dugal ko aljanna mënul ko dërëm da cee mënul dara wàccal ñëwal ci nuux mooy seyxul mursalin moom lañ naan aadama assaani xam nga yenn saa yi ñu ne la yow doomu aadama nga dëgg la waaye bu ñu neexee ñu ne aadama ñun ay doomu nuux lañ ñun bu ñu neexee ñu ne duñ doomu aadama de ñun doomu nuux lañ ndax aadama moo jur deuxième monde gi premier monde aadama ñooñu dañoo dee ba mu des ña ñu dugaloon ci gaal ga ñooñu ñooy xawmu nuux ñun ñii ci lañ bokk moo tax ñu ne Adama non mooy deuxième Adama mooy seyxul mursalin terewul doomam ma nga safara jabaram ma nga safara wala d'accord leen di alquran laa leen di wax de jabar ji nañ njëkkee jabar ji yàlla mu ne daraba allahu masalan lillazina amanu imraata nuuhin wa imraata luut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا وقيل ادخلوا ila duxulu naara man daaxilu yàlla ko wax yàlla nee na nuux li muy baax jabaram a ngi safara keroog ba yàlla nee na ba may dugal nit ñi safara dama dugalaale jabar ji lu tax nuux nuux sauvéwul jabaram pourtant yonent la waaye doomam bi mu nee doom ji irkam maana yéegal ci gaal gi ànd ak ñun doom ji ne ko déedéet saawi ilal jabali yaasimuni minal ma damay yéeg ci kaw montagne bi ndox mi dina ma musal ndeysaan mu ne ko laa asimali yawma min amri rabbi tey kenn du mucc lu dul ku dugg ci gaal gi bul yéeg ci gaal bul yéeg ci montagne bi xale bi daal ne paa waay paa waay xoolal paa xoolal yow waay xamoo li ngay wax yow waay montagne bi nga naan ndox mi dina fa yegg li booy yi di wax tey daal ne feew cëppeelu topp ndeysaan montagne bi fi ñuy wax ñoom ñaar rek yàlla mu ne wa haala baynahuma mawj yàlla nee na ma jël benn vague benn montagne ndox rek dóor ko seen diggante montagne boobu moo puus gaal gi allahu akbar montagne bi moo puus gaal gi gaal gi départ nu di xool doom ji xam ne na doom ji day alku day dee te safara la jëm mu xool mu ne yàlla ay sama borom inna ibni min ahli ay yow sama borom sama doom jii day maa ko jur yow yàlla nag li nga wax dëgg la lan la bëgg a wax mooy yàlla mooy li gaa yi di wax fii rek waaw kooku ji kooku ñu indi foofu ci kaso bi sama taalibe la de sama taalibe la loolu la nuux bëggoon de jàkkaarloog yàlla naan ko inna ibni min ahli yàlla ne ko laysa min ahlik bokkul ak yow tus avancé te sax gis nga boo bàyyiwul may wax def samay def ngay intervenir waaye am problème de mu ne yàlla baal ma wala du ayaaya du ayaaya mu ne du ayaaya wax leen du ayaaya yàlla moo ko wax de innahu laysa min ahli bokkul ak yow dara gis nga ñii ne du doom joo jur ñii ne dafa bokkul ci islam lu nekk borom xam-xam yi firee baat boobu yàlla ne ko te moo ko jur noonu la yàlla poussé xale bi mu daal di lab nu di xool gis doomam di dee jëlal jabaru luut mu ngi safara waaw léegi nag fu ay yonent seeni njaboot am problème yow nga làqatu fii ci benn ginnaaw sëriñ waaw def say tojaa nga yulul yeex doo julli doo woor xamu islam mokkaloo sa fatiha bu ñu waxee rek nga ni wax maa ngi ci ginnaawam de jaajëf waay wallaay boo ñëwee yow mal xiyaam di nga am gàcc mbokk yi kaay leen jaamu yàlla sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam moom la ñuy mujjee dafa am ku dee ci Médine doomam ñëw ne yonent xam nga sama baay de ndax xam naa ko bu wér ndax xam nga ne baaxul woon waaw xam nga ne naa fekk la woon mu ne bu leer mu ne waaye nag maa bëgg rek nga jàppale ma nga ñëw sangal ma ko yonent bi jóg Omar ne ko foo jëm yonent bi ne Omar bàyyil ma dem rek ndeysaan yonent bi moo bëgg dafa bëgg ñëpp dugg àjjana moo tax mu ne kullu ummati yadxuluna aljanna illa man aba wa qiila man yaaba ya rasul allah qaala man ataani daxala aljanna wa man asaani faqad aba sallallahu alayhi wa sallam moo tax bu nit ñi dekkee ëllëg su ne tëll yonente bi mooy njëkk a dekki bu suuf si xaree mu génn sikkim bi taq suuf jibril di ko faxas di ko fëgg suuf si wàcc xam nga yonente bi lu mu wax ayna ummati ana sama xeet ayna ummati ñun fii da ngay dégg naan eh ñun ñooy njëkk ñun ñooy dugg ñun ñooy dëkk dugg yonent bi waxul loolu de ay dina ummati moom moom loolu la wax fii ñun ñuy tiitaru naan ñun danañ dugg ñun ñooy njëkk a dugg ñun sax bu ñu duggee yéen du ngeen dugg dañuy tëj caabi ji ëtt ngeen te ngeen bàyyi nit ñi dugg te ngeen ñoo bàyyi ñu dugg foofu du fees ah waaw waa ji ba mu sawee ci jàkk ji gars yi bu ko dóor yonent bi intervenir mu ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad yonent bi ne ko dayyaqtal waasiata yàlla yal nag ma yërëm maag yonent bi keneen nag sama yónneeku yàlla ne ko eh yonent bi ne ko eh yërmande yàlla dafa yaatu ubbil ubbil yëf yi ñii ci lañ bokk gars yi nañu ubbi yërmande yàlla dafa yaatu nañ dugal nit ñi waaye dañ leen di dugal ci jaamu yàlla nag ku bëgg dugg àjjana da ngay jaamu yàlla waaw jaamu yàlla ngay def jaamu sa boroom loolu moo la yóbbu àjjana amul leneen tëdd di nelaw du la yóbbu àjjana nekk ci ginnaaw nit du la yóbbu àjjana kenn mënta bareel ba may la loolu dañ ko war a leeral ba mu leer ñoo ko ci kaw nit ñi dégg ko in ahsantum ahsantum wa an laysa lil insani illa kullu nafsin bima kasabat yooyu yëpp ay aaya la yeneen koy eggali am ni ko yàlla waxee noonu la amee ñaamanam ñaamataa ko daanonam daanotaa ko luy loolu
lekkal ma kaay leen ñu añ nga ni de lekkaleel ma ñetti fan nga dem hôpital nit ñi di nelaw nga ni nelawaaleel ma sama wàll ñetti fan nga dem hôpital wala ñaamanam ñaamataa ko daanonam daanotaa ko du dem de waaw jaamu yàlla rek bu nit ñi di jaamu yàlla sëriñ baa ngi ci jàkka ji nekkal ci jàkka ji dégg naa benn waaye mos na ñëw ci sëñ Faalu ne ko sëñ bi damaa bëgg nga yóbbaale ma mu ne ko naa la fekk ci yoon bi rek naa la fekk ci yoon bi de naa la fekk ci yoon bi de wala ku ñu yóbbaale day fekk ci yoon bi la ne waaye ku ñu yóbbaale yaa ngi toog sa kër wala yaa ngi ci baar ba yaa ngi fële sëñ bi kenn du la yóbbaale nañ wax dëgg du dëgg loolu mooy wax ci kon yonent bi daal di départ ndeysaan ñëw fekk Abdoulaye bun Ubay bun Salul fi mu tëdd mu ngi dee moom muri ko muy moom sahaaba yëpp mer kii ku bon kii yonent bi di ko sang ti mu ne bàyyi leen rek amaana su ma ko sangee yàlla baal ko amaana yàlla baal ko yonent bi daal di koy sang mu pare mu ne yonent doom ji de waaw sa mbu- sa manto boobu nga daan jiite aljuma di ko sol te nga ko koo sàngal xool leen manto yonent bi yére yonent bi allahu akbar bi may aji daaw dama dem tàggu sama benn rakk mbakke mbakke la ma dem tàggu ji ko ma dem seen kër yaayam ne ma foog nga dem ci sëriñ bi parce que daf la bëgg a gis ma dem tàgg ko toog waxtaan ak moom may dem bu daan may may benn mbaxne bu ñuul mu ñëw sol mbaxne bi bi ma ñëwaatee ay fan ma ni benn waaye pourtant sama mbaxne bi mbaxne mbàkke mbàkke la rek mu ne mbaxne bi di bëgg a rey boobam ne dootuma delloo sama mbaxne ko ah ak waa ji ne tey mu de texe nga texe nga yow yomb na de yow yomb na de sawaay ah loolu yomb na de mbax na bi rek ma sol ko rek texe naa ma ne ko xanaa xamoon ne am na ko sol mbubbu yonent bi mu ngi safara mun a tekk li mu déglu. ma ne ko waa ji yonent bi daf ko sang ak loxoom yi tedd yi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy solal manto bi mu daan jiite aljuma daal di koy yemu ci de yonent bi jullee ko waaw gars yi ñett yi foor na wala fooru. yamu ci de yenn waa ji yóbbu ci armée yi yonent bi gas ba mu ko wóot waa ji ne yonent bi dugal ko dugal dugal ñu jox la ko yonent bi dugg ñu jox ko waa ji mu dugal ñu suul yonent bi toog ci ar ci kaw yëkk ci loxo rek yàlla ne ko bul ñaan de astaghfir lahum aw la tastaghfir lahum lan yaghfir allahu lahum wala loolu du aaya maa kaana linnabi an yastaghfira lil mushrikina walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walaw kaanu uli qurba min baadi ma tabayyanahum annahum ashabul jahim yonente bi bëgg a ñaan yàlla ne ko bul ñaan boo ñaanee tamit duma ko baal te maa ngi lay yëgal de ku mel ni bu deewatee wala taqum ala qabrihi ahad abadan bul taxawati ci bàmmeelam naan da ngay ñaan yonent bi ne bu ma wóoroon ne juróom-ñaar fukki yoon yi yàlla wax ne su ma ñaanoon juróom-ñaar fukki yoon du ma nangul su ma xamoon ne ne juróom-ñaar fukki yi bu ma ko yokkee yàlla dina nangu dinaa ko yokk ndax yàlla baal ko waaye yàlla nee na bu ma ko yokkee tamit du ko baal
تستغفر له سبعين مرة لن يغفر له lan yaxfir allahu lahu boo ñaanoon juróom-ñaar fukk nga naan yàlla baal ko yàlla baal ko yàlla baal ko ba mu nekk juróom-ñaar fukk du ma ko baal kon nag nañ leen jaamu yàlla nañ leen jaamu yàlla mbokk yi tabaski ñett yooyu la woon jaam bu déggal boroomam jigéen ju déggal jëkkëram ñu ñëw ci deuxième bi jigéen day déggal jëkkëram soo bëggee am doom bu baax da ngay déggal sa jëkkër waaye nag ci ban façon nga koy déggal ndax mooy bi am léegi li gis naa ay borom kër yoo xam ne booy booy ñuul ma lay ma lay fase wala ma lay utal wujj boo ñuulee rek waaw benn femme dama koy jàngal mère la de mais ay pantalon lay sol benn jour ma ne ko mais mère mais yu tax yu ngay sol pantalon mu ne ma alaaji bee ko bëgg ma ne ko mais yow xale yi sa doom yi sax waratuñ sol lii ah sas sa waay daal nee na lii la bëgg naa koy dangal ba mu dang di ko tegal ceeb muy lekk ma ne ko léegi yàlla li mu bëgg nag mu ne eggaguñ foofu waaw léegi li allah ji bëgg rek la ñuy def duñ def li yàlla bëgg dañ leen a sa jëkkër su fekkee li yàlla bëgg la bëgg soo ko ci déggalee demal janna waaye bu fekkee lu araam laa taata li maxluqin fi masiyati alxaaliq kenn du tokk mbindeef ci lu araam sooy topp ni da nga koy topp ci lu baax waaw sooy topp ni da nga koy topp ci lu baax benn waaye dafa woor ànd ak rakkam weeru koor laa wax de ñu mu ànd ak rakkam ñu dem see ziyaara ji seen sëriñ seen sëriñu papa seen papa dee na léegi ñu ne kooku mooy seen sëriñ ñu ñëw ñu tegal leen añ sëriñ bi gis lekk ñu mu ne lan la ku makki ne ah ñun de dañoo woor woor ñun de sunu ginnaaw ku nu wóolu nekk sunu ginnaaw doo woor ku nu wóolu nekk sunu ginnaaw doo woor mag gi daal di raxasu commencé commencé añ xale bi ñu ne ko mu ne man añu ma de man dama woor wallahi xale bi moom ma ko doon nettali mu ne ko man dama woor xulli ay bëtam mag gi añ ba suuf ñu ne man loolu diine la di tere nit ñi woor di tere nit ñi julli di tere nit ñi jëm ci yàlla nit nañ ko sant jaamu yàlla bu dee jigéen la sa borom kër na la sant jaamu yàlla ah soo déggalee sa borom kër ci jaamu yàlla googu day di nga am tiyaaba yi soxna si li mu am inna kazalika najzil muhsinin
waaye ni ñuy wax ni jigéen dafa war a jëkkëram te moom jigéen dafa war a
mu defal jëkkëram te moom d'accord ci rek lu mu defal sa jëkk sa jëkkër bu ko neexee rek aljanna nga jëm xanaa day fekk mu neex yàlla li nga defal sa jëkkër day fekk mu neex yàlla su neexee yàlla mu ànd ak loo xamante ne dëppoo naag sa bëgg bëru borom kër moo la ko doon sant sax nga def ko loolu da ngay am tiyaaba moom mu am tiyaaba ndax man sanna fil islaami sunnatan hasana da ngay am tiyaaba waaye def lu araam mbokk yi yëg leen ne lu araam kenn du ci topp nit bu dee sa baay la ku mu mën a doon su la waxee bul def lii te yàllaa ko santaane amoo droit amoo droit ne bañ ko def yàlla moo ko wax wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala waaye wasaayihuma fi dunia maarufa amoo droit bañ leen bañ topp leen amoo kàddu yàlla moo gën a mag kàddu ñëpp kàddu yàlla moo gën ñëpp gaa yi nee nañ ndigal ndigal bi jógee ci yàlla moo gën a foor xoolal tey ñoo ngi nii suba la war a nekk tabaski est-ce que xam ngeen ne suba la tabaski waaw
d'accord ngeen ci wala d'accordu leen ci suba la tabaski de waaye di nga gis waaw waaw saa yoo ñu yendo arafaat comme tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suba te su- la ca tegu mooy tabaski ndeysaan waaye waa Sénégal bañ nañ ñoom nee nañ suba la arafaat xam nga li garaaw mooy nit ñi taxaw tey arafaat jullit ñi pare suba la alxamis nga ñëw woor yow loo nga ni tey la arafaat arafaat fan la anamu anamu ana arafaat waa Sénégal ana montagne bi ana ana nit ñi ana ñi armal dañoo war a dul ay xeer bokk def ko ba mu njool bokk alxamis suba ñëpp dem taxaw foofu fan lañ koy def ah du ma ci xam xanaa ñu dem àllum kaañ est-ce que du ñu dem àllum kaañ dafa foofu ay montagnes yu mag a mag léegi bu arafaat jotatee ñu ne waaw arafaat mi ngi nii Sénégal ñëw leen fii la après ñu woor nan ragal yàlla jaamu yàlla yi fële la bàyyi koo ñëw fii nekkul ne ñun ñoo ñee ñoo ñuy topp déedéet ñun ñooy topp ñee benn waaye dafa fekk jàkk ji may tafsir mu ne ma yow suñu waxee rek nga naan màkka màkka màkka mais fii nag ci Sénégal nag waaye bu leen xeeb seen bopp bu leen ñu xeeb fii ay nit a fi nekk ay kilifa ma ne ko wax nga dëgg de waaye nag mbir mi mooy fële la nag dëgg nga wax de sa waay fii am na ñu fi nekk ñun ay nit lañ waaye mbir mi fële la nag dégg nga non fii am na lu fi nekk ma ne ko weddi wuñ ko waaye li nekk fii moo ëpp li nekk fii wala d' accord ngeen ci wala d' accord leen ci li nekk fee moo ëpp li leen fii di wala ka nekk fee moo gën ñi nekk fii di ka nekk fee moo gën ñi nekk fii d' accord ngeen wala jeex na ña nekk fee ñoo gën ñi nekk fii maa wataati l ardu baada al anbiya xayrun min abi bakrin ah kon nag mbir yi fële la du fii fii fan lañ ñu wax fii nañ nañ nañ fi def safa ak marwa anamu am ngeen fu ngeen fi daw safa ak marwa donte yéen a ngi koy jéem a ut nag waaw booru géej gi nii boo fi jaaree gaa yi koy commencé ut waaw naan fii xuntumaa ngi nii ba mu jógee fee fii la nëbbatu ku ko fi wax mu nëbbatu ana aaya bu bu muy wax ne bi mu jógee fee fii la nëbbatu ana aaya bi ana aaya bu mu ne bu muy wane ne bi mu bi mu bi mu zonee fee dafa xonq fii anamu anamu dégg naa benn benn ci rajo wallahi alazim femme bi ne wallahi gis nga ndox mi ñuy naan su màkk jotee day aji kon instant yi ndox mi dem na xam naa mu ne bu aji jeexee ndox mi ñëwaat ndeysaan ay waay jayaate ku nekk day jay sa morom ku nekk day jay sa sëriñ mbir mi du loolu mbir mi jaamu yàlla la du jaayante mbokk jullit yi bu ñu buggee dégg dëgg mooy nanu fexe ñu déggal suñu borom ni Ibrahima déggalee boromam nanu fexe suñuy soxna ñu déggal seeni borom kër nanu fexe ñu yar suñuy doom ba nu déggal seeni baay suñu defee loolu ñu am benn këru islam loolu ñu naan usra muslima nga fondé benn famille boo xam ne foyer boo xam ne iblis mënalu leen dara iblis du leen mënal tus même baay ji bu fi nekkul même yaay ji bu fi nekkul iblis du ko munal dara waaye kër goo xam ne su fi papa ji nekkee la ñuy julli su fi nekkul kenn di julli su fi nekkee kenn du mu la ñu muuru su demee ñëpp mu réeku su fi papa ji nekkee gaa yi yeewu fajar su fi nekkul ñëpp di biddanti koo wax mu ne waaye paa bi waaye paa bi dafa war a góo sax quoi loolu dafa lakkal nit ñi waaye paa bi yàlla bu mu ñëwaat bu ñëwaatee kenn du nelaw fajar waaye le mais mais non. loolu ku ko bàyyi kër ku ko bàyyi kër musiba am na oustaz aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Thank you.